Macky Sall bu ñëwee Thiès. waa cees teeru ko. mais loolu c'est normal. ndax gan bu ñëwee ci dëkk dañu koy teeru. waaye taxul ñëpp ànd ak yow kenn àndul ak yow. ndax xam ne boo ma ñëw. dama ne Macky Sall bi mu ñëwee cees waxu fi dara. ay benn dëkk ñaari gaar ñaari gaar yooyu boo ko mënul yokk kay bàyyi leen ak seen gaar ma xamal leen ñaar ah. benn bu njëkk bi mooy yéene toog ba mu neex leen ngeen na Macky Sall na dem waaw kon lu ma fii defati moom na dem ay dama ne li def Thiès Macky Sall bu ko defoon Fatick waa Fatick du ñu bàddee ko di ñëw Dakar. damane ne bu fekkee ne dafa am ñu dëkk Thiès. waaw war a jàppale doomu Thiès. bàyyi doomu Thiès dem jàppale keneen. mais kooku am nañ si seen droit bu leen neexee. waaye waaye waaye nañu xam ne. bés bu soob bés bu ne ma wax leen ko. yàlla moom mooy joxe pouvoir. te ñun gëm nañ ne incha allah réew mi bëggatuñu Macky kon Macky lu mu fii toog. mais Macky Sall na dem abal ñu. te kenn kesewu ko dama ne gis ngeen vidéo bi nga xam ne moo lëmbee internet bi d'accord ma dikk ñaa moo ne buñ ko defee rawante ko su ku jiitu yaay toog waaye man bi ma seetaanee vidéo bi gis Macky Sall jiital kollam di daw dama ne sapeur pompier yi nag def nañu erreur ndax buñ ko bàyyi woon mu daw ñaari minute élection yi dañ koy reporté ndax da lay wóor ne fa muy yeewoo jàmm du fa am day xëmmali ko rek gis ay bulus baas ndax mu ngi forcé loo xam ne munu ko gis nga nit bu fekkee ne yàlla dala la bind nga am ni la yàlla bindee yàlla ko xam ndax man sama parti am nañu pataa dama sama parti am na ñu pataa am na ñoo xam ne yàlla may na leen kollu waaye daw dafa am ñu ko moom xam ngeen ne ma ne xam ngeen ne daw naa def tremblement de pied mais Macky mu mënul loolu léegi nag xam nga bula yàlla bindee nga am koll appui avant ngay am problème sa tànk boo ko sampee nii nii boo defee benn sonn ma waaye bu doon Macky nii la koy defee ay ca fekkee ne munoo ko da ngay bàyyi waaye di daw ba pare jiita sa koll mel na ku yàqu saaku ceeb xool leen makki nu muy dawee